présidentielle bi tey ci ci àjjuma ji day jeex ci min wi fukki kandidat yi juróom-ñeent ñoom ca tey jii daañu def li nga xam ne daal seen campagne bu mujj ba tax na daañu ànd ak seen i gàngoor wala seen équipe ba tax na jote waxtaan ak askan wi ci xool li nga xam ne kat mooy jafe-jafe ji mën koo nat mën koo settantal seetaat ko ba tax na kat ñoom ña ngi xaar ñu indi ca ay tontu yu leer. waaye naam sax gis nañ ne wàllu mobilisation bi war nañ ko mën a saytuwaat jéem a xool la nga xam ne moom lañ war a mën a jooyanti bu ko defee fexe ba dagaanu baata askan bi waaye tamit nag jamono ji gët yëpp dañ koy daal teg ci jeexital bi nga xam ne moom la campagne bi am ci nga xam ne mooy ay tëralin ci ay stratégie de communication ak i programme candidat bu ci nekk rek dina natt li nga xam ne mooy ay kàddoom wala sax moom la mu def ci influence bi nga xam ne am na ko ndax laal na ko wala déet bi nag moom dana nekkaat ci ak waxtaan wu yaatu ci loo xam ne ak ñooñam la bu ko defee itam dibéer mu bëgg a dagaanu baatu askan wi kon xool li nga xam ne mooy doole candidat bi partem ak i coalition am ña koy jàppal tànk ak paramètres yi nga xam ne ca la bokk ci wàllum organisation ak limu meeting yi nga xam ne def na ko ak mobilisation ci électeurs yi ak jeexital bi nga xam ne caravane am na ko ak ña nga xam ne moom la daal di sol dàllam dem nemmeeku leen di ay visite de proximité ndax loolee kat dana am impact loolee illa ju dëgg kon daañu xool moom itamit ndax siim naaw siiwul ndax ñi nga xam ne xam nañ comme déet est-ce que daañu voté moom li nga xam ne daal moom la ñu war a bàyyi xel mooy la nga xam ne mooy xob ba ñuy ci biir urne bi résultat yi nga xam ne moo war a tukkee ci saa bu ñu wàññi xob yi loolee day wax ne kat kii moo gañam déet ndax loolee campagne bi dana ko daal déterminer tamit saaj bu samp la ak lu mënti xew daal mooy résultat ci campagne yi loolee la muy firndeel mooy ne góor muy jigéen di ay électeur wala électrice kii la tànn